ñëpp sant ñëpp gërëm ñëpp. ñëw fii ci suñu gaal vingt di seen si bi nga xam moo xew ci jamono nekk ci vingt-quatre ànd ak ñaar ñu doy waar ñu ñun ñaar ñu les justifier justifier yaa ngi taxaw fii pour def les règle donc maanaam yoon. naaj bu jàpp yoon ci seen bopp. naaj waaw baax. tey danoo amul jotum ne fi di nuyoo ko sax ak a wax. waaw waaw. naaj lii lëmb réew mi wax. waaw baax. ay kilifa laa la wax ay kilifa jëm ba ñii ay ministre lañ ñee nga assemblée. waaw am na ci ñoo xamante ni guddi seen jabar da di duma dumay métti. nga ni buñ génnee génnee jiite mbooloo bi. loolu mën na. Eh. Eh. na ne. loolu na guddi. ah xam nga jigéen ñi dañoo doon ba ñëw seen jëkkër yi. taw <laughs> eh. da kër. waaw xam nga ko. sa waajur. kilifa borom dara jël. chaque jour ñaa ko gis télé bi. bu baax. guddi gi foo toll dégg ko ay sama laay. déedéet kay. ay jaari ay jaari baal ma. yaay baal ma jaari ba jaari jaari yaay. yaay ak yaay jaari la tudd. yaay jaari muy wuli rek. léeg-léeg la am na ci góor ñoo xam ne guddi dañ leen di duma ba ñu bëgg a dee. yow sax xëy ñu leen di escorté. nga ne la ay lax ñu leen di escorté ñu ànd ak garde corps. sax la kala. tey fekk bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu gis naa ci ay góor yoo xam ne nice. waaw seen sëy. Ah. bañ a sëy sax ko gën. xam nga hmm. ah. nice boobu bala ngaa bala ngaa tëddee sa jabar bala ngaa sëy ak moom. Hmm. da nga koy ko jënd ab jaar naa ko Serigne Coco maa la jëndal jaar bi solo ko ko ci guddi gi ko Coco may naa sa yaay kër dégg nga dinaa yóbbu sa yaay màgg dégg nga lépp pour bëgg a laal rek ndaw si naan damaa sonn naa nga naa ko jàpp ci di ko ñaan bañ salaatu da nga koy ñaan ba xale yi jàngi. baax na yéen mu am ci naa dinaa tudd tur tey jigéen bu fekkee yéen a ngi def yéen nga xamul yéen a ngi def yoon mbéj xam ne xamoon nañ ko ndax nag baax koy jàpp sa jëkkër di ko santaat pour mu mos la yaa ngi ci erreur bu rëy. ah yaa ngi jur mu xamante ni dina nangu ko lislaam nangu ko nga xamee mooy justice am. nice loolu man tamit. sa jëkkër ne ko. li nga wax man tamit maanaam kon sa jabar. waaw ah. boo bëggee tëdd ak moom da ngay tëdd ak moom saa nga saa nga neexal ko. donc mën nga koo neexal am na ñuy jël seen seen jox ko ndaw si pour tëdd sa jabar loolu loolu yàgg ba mu xasee ba nekk sa sa tool la la ñor. waxtu wala neexee saa yu la neexee nga ñëw jëm ci li ko mais am na ñuy ko. sa tool la na ñuy ko seen jëkkër ci tool ba sol ñu nag tool te koy nag. naan la sama yaay luy tax yóbbu woo ko màgg nga jël sa billet yaay changé ko jox ko billet yaay <laughs> maa ko gis. nga ni dinaa tudd tur. bul maa ko ñaan yaa ma ko doon maa ko ñaanal. naa tey su ma tudd tur bu ñu doon tur baax dëgg la rek dëgg a bi sa yaay comme tey man naa ñu bindal sama yaay. waaw ma sama jabar sama jabar na la effacé sa turu yaay bi def yaay. waaw ah. jabar. gis naa ko yaa dem Makka wallaay guddee ko ko nee ko de. déedéet kay waaw waaw waaw. waaye boobu màkk moom mbaa duñ ko lijjanti waat. mais màkk dara. ah màkk moom kay jar naa lijjanti. loolu touriste ah touriste la waaw waaw touriste la ñëw de. non loolu moom touriste la doon. touriste la. kon nag jigéen jigéen. mais loolu seen yaay dafay jox loolu màkk xam na ne sa yaay de touriste. Ah, ñaaw na ajar ko bu dee sa papa allah jiwu du ajar ko allah jiwu. kilifa gi ne suñu koñ de kilifa gi ne suñu koñ de. waaw. boo bëggee xam ne day sëy jabar ji tey. Mhm. ñun waa koñ bi ñëpp koy xam xam nga nañu koy xamee. Ah. ci bëccëg lañ koy xamee. daanaka xale lay gàddu di la tey rek di ko jënd gërëm baax yaay. waay sax ma yóbbu baax yóbbu xale ba raay ba tourné indi. jël jël rakki ndaw sax. waaw tinal ko téléphone. dem kër yaay ndaw sax. digg fa biir makka. lépp ah waaye sëñ bi bëgg bi ci nag baax ba pare nga ne danga ci bëgg am doom yi baax. sëñ bi di ko koñe sa jëkkër am na ñoo xam sa jëkkër da leen di raay di leen raay di bay bay laal ñu képp ko. nga di na ko yow cent li ma la waxoon anam waaj naa ko ci def ko ci rek bu subaa mu wari la ko de waaye naa la ko nag danga mbokki Sénégal mbokk bitim réew yéen ñi doon am njàqare ci seen wàllu ameublement seen coono jeex na Suzem menuiserie métallique Mansour di liggéey ay meubles yu méngoo ak jamono lépp loo soxla ci wàllu ameublement muy table lal armoire coiffeuse ba ci escalier boo ñëwee fii ci troisième fekk ko fi liggéey bu mucc ayib te ànd ak jamono muy fer aluminium ba ci inox boo ñëwee di ko fi fekk adresse bi benn la Thiaroye Tali Diallo numéro téléphone bi 77 975 75 95 ak troisième daal seen coono jeex na ci wàllu ameublement. nga ne kilifa yi sol ay dara garab jugal ba mu da cee dem ñu ne la du ma ne li ñuy daj guddi am na kilifa yi ne ci li ñuy daj guddi ah. oh, ba tey ay muusi sëy ah dëgg dëgg am ba tey muus ah, yéen sëy rek am sëy ngeen bëgg ko def ay muusu sëy dafa ñaaw sëy dafa ñaaw am sëy ngeen jël ko nit ku nga xam ne yow sa jabkar dalaa takk ci fardaa ko sunna tool bi toolam la baax daa mel ni nga jël sa pàkk mi lii dama koo jël di ko def neex def ci ah yaa ngi neexee saxal ca mango bu neexee saxal ca limamul bu neexee saxal ca tamaate bu neexee saxal ca kaan lu la neexee ndax sab tool ak doo ko jënd na juróom ñu ci may la ko ci farata ak suuna rek ca la jawar def mais tamit benn affaire saxal sa tool ñu de ci jub waaw mais nice góor toog di xoole waaw jabaram futti ko waaw di ko dóor ay ndomb ci guddi gi waaw mais tamit loolu lan la bon loolu it tamit loolu tamit lan la te ay loolu ban xeetu sëy la ay ponk seen tur yaa ngi nii. bu bu bu leen mel noonu tudd. tur yaa ngi nii bu leen tudd ay ponkal bu leen tudd ay ponkal am nañu. mën nañ leen tudd nag. billaay saa waay dafa waxoon ku leen tudd maanaam bu leen tudd. te am ngeen ni man moom. mais parfois tamit parfois parfois jigéen ñi jàpp la ci point de. am na ci góor ñoo xam ne tamit seen. waaw dugg ci biir am na jigéen ñoom góor ñoom seen seen seen connexion doxul nag. ñooñu ah, pour dóor ngeen mën a def pour dóor leen guddi. Hmm. da nga leen di dóor pour mu jóg pour mu jóg. <laughs> ah boobu say neex na. jàpp nit xam nga tey jii boo yoomee tey jii nice. waaw bu fekkee naa yow tey jabar bu lay dóor guddi doo yuuxu bu nit ñi yee looy wax. damaa jóglewul moo tax mu dóor ma. ci yàlla da ngay noppi tëdd. ci yàlla ngay def boo xëy nag dem ca ca service ba nag ca entreprise. waaw di jaay maanaam waaw eh, ana secrétaire bi. waaw am na ko tegoon fi seize bi. Eh, waaw allez metti boobu ana. ana nga taxoon fii. ay eh, fecce mette sa door. <laughs> bilaay te dem message yooyu ñoo gën a ñàkk fay na ci kër gi. ñi nga gis ñu dem nii bu ñu ñu la yar xarum xarum yar nim la ñu def xam nga lii. Ah. <laughs> ñaareel dafay ne war na ko jàpp ñëpp xolam góor gi. am na ci góor ñoo xam ne boo leen ñaanoon tey ay dàll. Mhm. dañ naan baal ba soxna si ñëw. ka koy laaj ñëwul loolu. dañuy laaj ba pare de. pour may nice am na góor ñoo xam ne boo leen ñaanoon mille francs dañ naan baal ba ma dem ñëw ma laaj. wallaay nga gërëjëf ko dama laaj. nga gërëjëf ko ñàkk fayda ñàkk jom. Mm. kooku di solo paar bi ci dëkk bi nag. loolu salopard noonu nga ne ma koy may. loolu yëfi salopard. sa yaay sax day bëgg a ñëw si kër gi sa yaay sax day bëgg a ñëw ñu naan waaye ah, vraiment arrangé ma laaj ma ba pare waaye. sa yaay waaw lay la la baax bi di yàlla ma saaga gi def na. ma saaga seen ndey de. jàpp ma saaga di dund ko benn yoon. ay kilifa lañ seen tur yaa ngi nii benn yoon ma saaga day di yàlla waay. dox rek may. waaw ñu boole saaga. benn benn ndax xool lii sa yaay war a ñëw nga ne xaaral ma laaj ma dem pour mu ñëw kër gi. may ma ko lii kër baax kenn mbir la saaga de kal wax ka. Eh, ah waay waay naaj. ay waay waay waay waay lii waay. ndax xam nga yii tamit da ngay waaru kaaw ii xoolal sunu waaja ñëw ba këram jox ko invitation na ko maag naa dañuy organiser Sunugal 24. waaw benn événement bu rëy ñaata ci affaire yi mën a xaaral ma rafet ñoom waxtaan mais après damaa xool ba waaj man xool naa ko sepp na ko mu ne mais est-ce que kii tam. am na ñoo xam ne ñu dem seen kër yaay dañuy tàggu seen yaay dañuy tàggu seen maram. bari na ci waaw ah, maram ñoo dama bëgg a dem suma kër na ko non sama eh, ah, a ko a ko dama la koy bàyyee mën ta ñàkk. bal perdue daan yoo xam ne kilifa yi mën ta ñàkk. bal perdue parce que du bal perdue bal perdue la muy baax jaadu na ko dal parce que nag léeg-léeg baax day jaadu bal perdue di génn ndax nag yenn xam nga lii dafa daan ñaaw. am na am na am ay kilifa yoo am fula nag am na kilifa yoo xam ne ñoo dirigé seen kër. waaw waaw waaw ndax moom moom. comme Matar Ba ministre des sports. boobu kër gi la laa. jabar ji dañuy tëdd ne la sama nag jógal ñoom Paa Naas ñoo lay ataaya leen. Ah, kilifa la daa am ñoo xam ne seen wax du randu buñ ne lii lii la buñ ne du lii du lii am na fi nag am na suñoo xee moom bu ñu xasee na xee eh, defal nii noonu ngay def ba ñu toog sama bopp noonu. waaw am na nag góor lañu. waaw ñoom dañu yàlla bindee leen la góor la ñu rey leen xam mu góor ñu xam ne ñoom ay góor la ñu defee góor. Mm-hmm. mais daa am ñoo xam ne daa mel ni xëy jigéen la ñu rey. Mm-hmm. ndax li ñuy def yii jigéen ñoom dañuy def. waaye naa yees. ah waaye yéen a ngi gis nga guddi li ci xew lépp bu ñu ko doon filmé. ay mooy mooy kat ba waaye noonu yëpp neewal na bu guddi <laughs> ko bëccëg. gis nañ am na kilifa yi nekk fii di tere fecc waaw. naan bu baaxul bu guddee. xalasoon nañu sax naan awa jaaye ma leen gënal. awa jaaye ma leen gënal. bu ñëwee war naan ay eh, ku fi musique ma toxal sax. ba tey damaa saaga. Ah. waaw yaa ngi ko ñaaw damaa saaga. waaw mais gaaw day jaadu. la moo kii yoon la biral la ko. saaga nga kay. kon nekk boobu da ngay doxal ne. kon egg nañu émission bi. egg nañu am na loo xam ne baax day naturel. ban période am nga ñaari ban période jaadu na. Sénégal bari nañu baax waaye bari nay doomeeram de. non bari nay xaj. fii bari nay xaj bari nay kanis bari nay golo. ñenn ñi fi golo ñu def ñu fi xaj la. sa jabar takk ko. waaw farata yàlla sunat Muhammad. waaw booy dem sa yaay dangay ngay tàggu sa jabar. waaw booy may sa yaay da nga koy sa jabar. booy may say xarit da ngay sa jabar. yow sa jabar moo la commandé ci lépp. boo génnee di bëgg rey nit ñi wax ju bari. pour lan. bu ñu wut imbécile kooku mooy imbécile de pire espèce. loolu la ñu naan imbécile de pire espèce imbécile bu. am na ay directeur ay directeur société nag. ñoom la ay entreprise. mooy du ñu jeex. assemblée ah, nationale gi dafay jeex. yéen bëri na ci. moo gis naa ci député yoo loolu nag boobu feebar laa xamul nan la mën a dalee góor. seen jabar leen yëlif. seen ah, jabar leen yëlif waaye jigéen yéen ñu def loolu. góor ñooy jabare ba wax jigéen ñi dara. booy ñoom ñaar ñëpp fautif la ñu. ba góor gi ñàkk na fayda waaye jigéen ci amul rasu amul lu ngay bañ ndax am na loo xam ne boo góor nangu yooyu nga bañ ko koo teg bu doonee ko ñàkk fay doon ko feebar. waaw sëy boobu xanaa bëggoo ci njaboot ko embarqué. dëgg ko santas. ah micro bi ko du dugg te joxoon ma leen lan. waaw naaw ko gis ci ay muus. waaw muus mat waaw mat mit xeex. waaw waaw ah waaw waaw. bu dëkk sëñ yi. sëñ yi yàlla bu bu ñu ne wutum suuf maa ngi gis nga muus su amee doom. Mhm. dañuy tonn mu doom yëpp sànni xaj mi nga xam ne daan nangu xaj. waaw doon nañ koy séddoo xaj bu bu jigéen bi day ñëw mhm. sëkk bu góor bi wàcc ko bu juree doom quoi. waaw doom yi ku ne ci bëgg. ku ne day bëgg ci doom ku ci doom ndax dafa nangu. waaye moo sànni ndey moo sànni rek waaw moo sànni rek. sànni acca mbareem moo doon fekk fi doomi muusi. doomi raaj boo amee doom tam noonu lay demee bureau bu mu fëgg. waaw ñu ne ko noonu jël nañ ba pare. waaw jël nañ ba pare. jël nañ ba pare doom tam noonu lay demee. da nga yor dossier yu baax de. waaw dossier yu baax wala. naka am na ñu di xool baax de. yor say dossier normal hmm? dem fëgg bureau ah, c'est directeur na pas nice nga ne mm. woy dama ñëw pour déposer dama nga ne non dinañ ba pare. am na lu ko dama laaj sa yaay. dama laaj sa yaay nga dem aéroport. waaw déedéet nga am sa passe mm. ñëpp yéeg ba mu def sew nga dem dama laaj sa am na. moo tëjoon sa buntu baay moo tëjoon sa buntu baay. jigéen loolu a xam. ngay jàng ay ba bëgg a dee dama doon dem fenn. a laaj sa yaay. Ah, waaw waaw dama yóbbu waaye da ngay laaj sa yaay rek. Mhm. dama yóbbu waaye sa yaay rek. a loolu la rek. waaw sa yaay rek loolu. góor am leen fu la seen am leen fu la seen jabar. jigéen ñi nangu leen. tax na nangu leen war. ah waaw yéen c'est trop waay. ñuy gërëm suñu sponsor officiel muy Cheikh Tidiane Thiam borom Pikine borom Pikine. club social. social kenn moom ki mooy. Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane Tall sponsor officiel sunu gaal waaw suñu gaal waaw kooku ngeen déglu des institutions jërëjëf Cheikh Tidiane Tall mooy doomu nday Macky Sall nag ak waaw waaw macha Allah Cheikh Tidiane rëy lañ liggéey Pikine di liggéey lu rafet Pikine la maire Pikine la doon def moo koy def te nekk mu maire du dara du dara da koy def loolu rek tax waaw te bii di ñëw dañ koy invité fii suñu gaal benn nañu gis ko teg ko xam kii mooy l'homme social fii ñu baax ñi lañ fi indi kese. waaw ma jeex tàgg. waaw jërëjëf. kii moom xam naa naaj ci mos a invité nit fi mu ñëw. waaw ma yan ko ndayam rek. day ci jaar nag lii da day jaar ñu na ku man. man de garaaw day